man dama doon ñaan balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek daañu def une minute de silence jagleel ko suñuy doom ndax ñi fi faatu ñëpp wala ñi fi faatu ñëpp ñun lu ñuy doon ndaw ndaw ndaw mat nañu doom tey jox nañ ma list boo xam ne jeexagul ndax ñu ngi confirmé ñu ngi xool ñeneen ñi ñi ci tudd ba am confirmation waaye bi ñu jotagum mat na déjà fukki nit benn bakkan bu rot rek ci anam ku mel nii nga xam ne dañ koo faat musiba ci réew mi rawatina nag buñ nee tey mat na fukki bakkan bakkan yooyu nag mooy ku ñuy wax Baye Cheikh Diop amoon fukki fan fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ko fàttee fii ci yëmbal Cheikh Koli amoon ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko fàttee ca Bignona Famara Goudiaby moom it amoon ñaar fukki fan ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko Bignona Pape Sidi Mbaye amoon moom it ñaar fukk fukki at vingt ans ñu faat ko fii ci kër Massar Sadio Camara am fukki at ak juróom-ñett 18 ans ñoo ngi ko faatee Diawbe Mansour Thiam moom it am ñaar fukki at vingt ans ñu ko faatee fii ci Ndakaaru Alassane Bari amoon fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko fàtte fii ci centenaire ci Ndakaaru Moussa Dramé amoon fanweeri at ak juróom 35 ans ñu ngi ko fàtte ca Ndofane Bourama Sané amoon fukki at ak ñaar 12 ans ñu ngi ko fàtte Bignona ak Modou Ndiaye nga xam ne moom la ñu mujjee xibaare ñu fàtte ko tey fii ci Parcelles Assainies ci anam yoo xam ne ñaaw na fu ñaaway yem kon ñu ngi leen ñaaral borom bi xiri leen xaare leen bay ñaan nag ñi fi nekk ñépp journaliste comme participant ñu taxaw def une de silence jagleel ko suñu rakk yooyu ak suñu doom yooyu Masai. Jamil moo jagleel leen ay ay ñaan yoo xam ne xaasatan la euh, yokk barke rek comme yaa yàlla def mu teew fii te sëriñ ñu jox ko micro rek mu defal leen ñaan. ñaan yàlla euh, mu daan da leen si déggu kaw sama loo waxoon benn bu nekk ànd ak bis waaye ñeneen ñi nga xam ne bokk moom ñoom jiite ñu def seen prière waaw ko parce que je suis le conseil mondial des religions pour la paix wala ñuy def lu nekk ku ne day ñaan ci رسول علي بما يتلو علينا يا عازم السبحان يا عازم الذات وعن المثال والشريك والنزيل والصحابة والود والحق أبدا وصمد في حياتك الأبدية وانبسطت الحياة من حياتك فأنت باقي فالحمد لله كما لك البقاء ولا مالك كما لك البقاء ولا مالك اللهم اطلب قدرك لطفك الحبل الذي إذا نطق به لعبد كلية واسترهم بسترك الجميل الذي صدق به نفسك حتى جعلوا مباركا ولا يجن تصل إليك في مماتهم اللهم صل على سيدنا محمد جميع الأوائل ولا تفعل وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهر منا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عن عبادنا بها وتبلغنا بها أحسن من جميع الخيرات في الحياة amiin amiin amiin jërëjëf mën gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais yi ñuy yëpp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yi jiitu bir na ma man ni ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jéebaane wala ñu koy wax ci kaw dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko lañ ko waral lañ ko waraloon am na loo xam ne bu naree xotti borma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom kon ñu leen di ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada yi bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñépp ñii fi nekk ñépp amul kenn koo xam ne politique wala par parloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii par parloo moo tax waaye ñi fi teew ñépp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci lu ma ci dajul man mooy Sénégal ñi gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal taxawal ñu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être 10 pour cent yi dinañ génn wala 15 pour cent yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax sénégalais yi génn li tax lii am mooy yéeg-yéeg bu kenn ku ne am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moment yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn rek defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci turu peuple sénégalais bu la weesoo may sargal jigéen ñi it ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujje waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñu ma mën a lim ak ñi ma mën a limul defe naa Adja Yacine ngi nii toog sama wet euh, sama avocat ay dëmbooje gi nga ñoom mbay mën a busu ak keneen ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom Aysata Saabala ñoom euh, euh, euh, nu mu tuddati Maam Jaara Faam ñooñu ñëpp nag ku ma limul rek ci mel ñu delloo leen dugal leen ci journée bi di leen jaajëfal bu baax mbokk yi li xew ci réew mi doy na waar li xew ci réew mi ah, def naa ñoom Decroix ñooñu ñooñu ëpp expérience foofu ñooñu fi gën a yàgg waaye gëw ma ni lii fi xew mës na xew ci Sénégal du événement 63 du événement yi ko jiitu du 68 du 2000 du 2012 88 93 ba tey jii defe naa lii xew ci Sénégal mës fi xew ba tey jii Sénégal mooy numéro un ci actualité mondiale journal boo ubbi Sénégal mooy numéro un ci actualité mondiale kon loolu du lu tuuti il faut que ñun sénégalais ñu mun koo natt xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew parce que su dee mënuñu ci jël ay jàngat waaye gañe ci ay point ba lii dootul am ci réew mi bu boobaa defe naa dañoo sacrifice yi dootul jëriñ dara ñi seen bakkan rot ñi si gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy dellu euh, delloo njukkal ni ma ko defee ci ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci te dinaa ci dellu si ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu gaañu yu xaw a garaaw la di yàlla rek mu bañ a foofu di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñooma du ñun di ci def nag ci jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndaw Sénégal yi la jeunesse sénégalaise di leen delloo njukkal bu particulier nous avons une jeunesse formidable yàgg nañu wax ndaw Sénégal yi nii ndaw Sénégal yi nële déedéet suñu jeunesse daf dañu jël dañu am avance ci ñun ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance ci ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmaarloog alkaati mu yor arme yor lu la mun a rey yor lu la mun a gaañ yow yoroo lu say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen wa fet beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce gaalama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni day door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la ñun acteur politique yi ci seen waaw lañu war a doxe yéen lañu war a déglu kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo dina ëpp liñ ci mën a jëlee te lool naa ci dellu si bu si kanam ma wax nag nii ñooñu ñépp nag nga xam ne sonn nañ ci mbir mi même ñi toog seen kër di ko naqaru même ñi yor seen kurus ak seen sijaada di ñaan bu ma nekkee fii tey di waxtaan ak yéen xam leen ni yéen yéen a tax ndax bu ngeen amuloon taxawaay boobu waxuma la tey jii waxuma la ajjuma bii passé waaye lundi lundi 8 février laa waroon nekk Rebeuss kon tey du fii toog si wax ak yéen kon bu leen kenn gëmloo nii dañ ñoo may faveur may ñu waaye seen taxawaay li mu firndeel rek mooy li tubaab naan la souveraineté appartient au peuple mooy kàttan dëgg dëgg dëgg sañ-sañ dëgg dëgg dëgg ci réew askan bee moom kenn moomu ko ñoom dañoo faral di wax loo wax ñu ne la force reste à la loi restera à la loi waaye la loi mooy le peuple la loi du député la loi du Macky Sall la loi du Antoine Diome la mooy la volonté populaire ku dem nag ba sàggane ko foog ni loi yi ñu voté te peuple bi voté ko mën nga koo jalgati di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngan la bu mu dajati Sénégal bu mu dajati parce que lu ñuy wax les grandes démocraties boo gisee njiit yi am lu ñu sajul foofu mooy askan bi dafay taxaw jonn di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ne leen lii duñ ko nangu ñu dellu si waat kon ñu ñëpp nañu am taxawaay boobu bis yi ci tey ma wax tamit nii ñi nga xam ne ñi ngi ci kaso yi tey lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci loxo Macky Sall ñii Tambacounda ñii Kédougou ñii Ziguinchor fii Ndakaaru ba euh, saint wi Tivaouane fu nekk jàpp nañ fa ay nit ñoo xam ne sàccuñu reyuñu nit wuruñu laxas laxasuñu suñu ay billets détourné wuñu xaalisu réew mi seen crime mooy dañoo manifester te constitution moo leen jox droit ñu mën a manifester loolu ñu ngi leen koy ñu ngi wu ñooñu waaye di leen xamal ni duñ leen seetaan te dinaa ci ñëw bu ci kanam di masawi ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon cislaayu mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te suñu xeex jubluwuñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu du woon cëslaay bi parce que ku bëgg a yor réew ak ku bëgg a defar réew doo toj al allu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy massawu bu baax it ñi mu dal di massawu njabootu ñi ci faatu di leen leen jàll te bu soobee yàlla dinañ góor góorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñépp dox ñëw jaale si leen di masaw njabootu ñi gaañu lañ ci mënit ci taxawut nañ ko def di masaw njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete ne leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuranke wala sa njaboot du waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay tiis yu dal ci senegal lan moo ko waral li ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar ni ñoom dañu war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw lool lañu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la bëgg mooy nit ñi faju la bëgg mooy tale yi baax Macky Sall ci loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw euh, citoyen yi muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku ne d'accord maag Macky Sall rek teg na doole boobu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg ba sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick sal ak Bassirou Gueye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen di defloo ay ancien directeur du domaine ak ay euh, avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yépp ci jamono ji ñu toll tembe ci ñooñu la est-ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbe leen est war nañ ko mën a góor ñu nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor nguur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mën a jot jot jot ci opposant waaye ñoom saa su ñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd tey ñi ngi romb Sénégal yi di leen narge loolu nag la ñu mënut a nangooti loolu tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky Sall li ko bewloo bokk na ci ñun Sénégalais yi ñenn ci ñun Sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñi naan analyse politique lañu ñi naan lii lañu ñu naan c'est un génie politique génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mun ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'état koo xam ne bu ñu la jënkee réew nga defar réew mi waaye soxla ñu ay génie politique génie politique mooy lañu la dénk nga liggéey ko ba Sénégal yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek dal ci kaw nit ñi. 9 ans de Macky Sall li fi am mosul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu rek lañu mën a tudd nangoo ci te te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison. haute trahison mooy wor bi gën a ci wor yi mun a am ndax moom biñ ko falee dafa dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des sénégalais li mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi. nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yëpp ay terroriste lañu peuple boobu yëpp dafa am ay intérêt yu ne seen gannaaw di leen financé ndaw ñii dañoo mës a gis ko leen financé taxaw saaga sa peuple ñëpp ñëpp wéet yow dong sa pale tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palem cundum peuple bi yëpp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu ne suñu diggante tey jii kenn du kenn du kenn du kenn ay ay ay bagages am koy xool loolu foog ngeen mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma war judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à à huit heures à koy jox seen seen seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral Sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon duma nangu benn Sénégalais am xoosu xoosu waxuma laa bakkan juróom parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam boroom responsabilité Macky Sall la ak comploteur am ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la boo xam ne war naa gouverner ci ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la République te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey da laay doog a dégg Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru ko d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci boole médias yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taal réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnel képp kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fi doog am te dafa war a dakk Macky sal moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax wax ju sedd est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngal ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens responsabilité ak seen hauteur man dama leen mujj naw GIGN bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngalla waaye bu ñu caaxaane suñuy institution des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn mësumaa sax bëmëx kenn mësumaa xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yëpp ñeeñu ko ngalawaay Macky Sall bul yàq suñu réew gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote une fierté pour Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ci bàyyi xel. te gëm naa ni ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew ni ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu njaas Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey jii amu ko amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidat yi maa yor position boobu ba léegi mosoo ma dégg ma ne ko président Macky Sall Macky Sall laa koy wax parce que légitime dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu woon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii ñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf cee baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëmee réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparé suñu élection anticipée ñi war a dem dem jàmmaarloo waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mënatoo wala di ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaanee Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi. kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane ko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Diagne wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñi ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté la révolution est en te gën gën see gudd 2024 ñu mottali ko la des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réew Afrique yu bari def nañ ko mooy dañuy continuer seen révolution ba jekk ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir te ñaari armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen i nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer daañu ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadré parce que stratégie dafa baax ci lu ne lu lépp nag la wax ci tere waaye suñu responsabilité ñu ñëpp askan bi mooy nañ ko encadré ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag nii dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadré mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer la rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul mënul tax ñu ñu ñu ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur bi da leen fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence mag ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci nu mu gën a ba rafetee ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition immédiatement et sans condition te nag point bi ma njëkk wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce que faut ñu xam kan moo tiire ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñi wax nag ni dé ñu ngi déposer une plainte auprès de la cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ci tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionner suba ngoon Macky moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis ni ki tey ñaareel bi mooy ñii nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yu ñu jël jox leen xaalis ñu yor ay jaas yi ak ay fital di di di fit nit ñi exigence nañ leen a identifier jàpp leen livrer leen à la justice yu leen ñoom ak ñi leen yónni nag ñoom ak seen commanditaire juróomeel bi mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections nu mu gën a leeree ay wuruj fichier électoral jeex na ci senegal yor say carte d'identité ne du ma ko jox ndaw ñi parce que ànduñoo ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mën a demee ci élection yoo xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection local sénégal yi tànn seen i maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu dina organiser élection législative en 2022 sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci ni mu gën a rafetee lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitime Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan may buum may buumi maay seet kañ laa kañ laa koy def ak nu ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal euh, juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bii ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaaru yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi lool suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootul fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégal yi seet ku leen doy ñu tànn ko waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal juróom-ñeenteel bi wala juróom-ñeenteel bi mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog sénégalais yëpp amul moo bon vouloir wala nii wii nii non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd wax ma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii wii nii non ak yu demet jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën dafa fa ne nekk candidat lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution boo ko may ni man duma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey won nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi mu ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée. France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi un million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa. exiger que lii ma wax neuf mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew mi su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul dootul doon ñun loolu jeex na ci réew mi may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñëpp nañ di acteur politique askan bii mérité na des acteurs politiques qui soit à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp waat ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépensé si ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog ni ci milliard ci politique nga amee milliard ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk senegal mën nañu am ay projet yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf fi war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci senegal kon dama bëgg ñu nit bi bi ñoo gën a gore man de man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ci tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bii pas ça doit être le bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee fi ñëw def nañu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp. kon loolu ci lu jëm ci ñun la ngelawaay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na trop. waaye dafa fekk li tubaab di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk laay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ni loolu amut ndax gannaaw bu ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn seet Cees ak feneen ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na nañu xeex dëgg kon li ma leen ñaan mooy ci six mois yii juróom benni weer yii li ma mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp nit mi nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mine yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a la te boo seetee li xew Sénégal tey di nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt. Euh, di wax tamit ni ci li jëm ci mbir mi nee nañu contrôle judiciaire la man nag acteur politique la sama indépendance politique kenn du ko xañ loolu moom mayu ma ko kenn ñaareel bi ñun musuñoo daw justice combat de principe mooy li suñuy àq ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te danañ ko continuer xeex ndax suñu avocat ñi ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci nu ma gën a gaawee ci nu ma gën a gaawee ñu dem ci procès ba nu mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jib fuñ ko foogewuloon may remercier it euh, euh, ci présence su daam yi parce que tudd ma góor nii waaye bës bi bés bu jigéen ñi la mm-hmm. madame la ministre Aminata Lo Dieng di ko remercier bu baax ci présence am ak ci taxawaayam ci combat bi ndax mbir mi commencé rek la daw si kër ga donc je vais récapituler plus brièvement en français euh, je crois qu'on euh, passer sur la minute de silence commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers pour une fois le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'il ne cesse de jouer. Lorsque nous, hommes politiques, avons fini de mettre le feu au bout. Les parce que je sais que depuis le début de cette affaire, ils n'ont cessé d'intervenir. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, spécificité. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat, puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées. Et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky porte la responsabilité de leur assassinat. Plus quatre autres ou cinq autres personnes qui restent à être, confirmées. 10 personnes, 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas une tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Macky Sall. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette situation Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoubé par une cour de l'onateur dont les plus en sont ses quatre affidés, son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix son ministre de la Justice, Malik Sall, son procureur, Serigne Bassirou Voilà le quatuor qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique que de mémoire d'hommes on n'a jamais vécu dans ce pays. Beaucoup, beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on n'en a vécu une comme celle-là. c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky avait suscité un, grand espoir de la part de tous les Sénégalais, avec un, une kyrielle de promesses, les unes plus mirabolantes que les autres, sur la restauration de l'état de droit, sur euh, la démocratie, sur la bonne euh, la patrie avant le parti, toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Macky Nous sommes tous quelque part responsables, particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Macky Sall un génie politique, lequel génie consiste à des qualités ou des capacités à comploter contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, n'en est absolument rien, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall les tient par des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut se soigner. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut des écoles de qualité. Le peuple veut des infrastructures. Le peuple veut vivre en liberté. Le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison, puisque Macky a juré sur la constitution, de respecter et de faire respecter cette constitution et les lois du pays. Il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire, si Macky Sall trouve le temps de fomenter des complots sordides, ce monsieur aura trahi le Sénégal, aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi Nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Macky Sall pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style de gouvernement de Macky Sall. Et malheureusement, il a même entraîné euh, une France du pays dans ce, dans ce sillage. Nous devons tous faire notre introspection. revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de radio. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est sous Macky Sall que c'est arrivé. Jamais dans, au, au Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, euh, euh, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, c'est et de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Aucun président n'a le droit, digne de ce nom, n'a le droit de mettre nos forces de défense et de sécurité dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Je peux jurer que ces forces de défense et de sécurité sont plus meurtries que les manifestants même de la situation qu'ils vivent. Parce que c'est les Sénégalais qui rentreront tous les jours auprès de leur famille, de leur belle famille, peut-être où il y a eu un blessé ou un emprisonné ou même un tué. Et ils, elles n'ont pas été, elles ne sont pas rémunérées par le peuple sénégalais pour gérer le service après-vente des complots de Macky Sall. C'est dommage et c'est déplorable. Et vous me permettrez de rendre un hommage également à ces forces de défense et de sécurité. J'ai dit au peuple sénégalais que j'ai été agréablement séduit par notre gendarmerie nationale. nous avons une grande gendarmerie nationale une énorme gendarmerie nationale j'ai été si bien séduit par les éléments de GIGN qui ont assuré ma sécurité ils ont plus assuré ma sécurité qu'ils m'ont qu'ils ne m'ont arrêté du jour où j'étais interpellé le mercredi au jour d'aujourd'hui en respectant scrupuleusement les ordres mais sans brutalité sans zèle et sans animosité J'ai été si bien séduit qu'avant-hier, lorsque mon fils est venu me visite à la brigade de recherche, je lui ai dit, Mohamed, prépare-toi, tu vas, faire le concours pour être GIGN. Je rends hommage à ces, patriotes que nous pouvons apprécier de loin, d'un regard qui n'est pas forcément ce regard-là. Tout ceci m'amène à dire cela. Macky ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. Il ne l'a jamais été depuis son, le début de son deuxième mandat. Je fais partie des quatre candidats qui s'étaient réunis et qui ont signé un protocole pour dire qu'on lui dénie toute légitimité. Et je crois être le seul qui campe encore sur cette position. Et aujourd'hui, il y a circonstances aggravantes. Si on était dans d'autres circonstances, le peuple aurait dû marcher sur le palais et sortir Macky de force. Mais je le déconseille fortement. Nous le déconseillons fortement. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont assis ici. Mais je crois pouvoir parler à, au nom de tout le peuple sénégalais, qui est un peuple sensé, un peuple équilibré et un peuple mesuré. Si Macky tire les conséquences de son échec. Parce qu'aujourd'hui, il est seul bunkérisé dans son palais face à 16 millions de Sénégalais. Et n'eût été les forces de l'ordre qui font tampon, et même l'armée maintenant, je crois que la messe aurait été dite depuis longtemps. Si Macky Sall en tire les conséquences, et j'espère qu'il le fera tout à l'heure à 20h, prononce sa démission, nous en prendrons tous acte. et la Constitution sera appliquée pour organiser les élections dans les délais prévus. Je tiens à dire d'emblée que pour ces voix qui s'élèvent déjà, pour dire que puisque Macky Sall n'a plus cette légitimité-là, nous devons aller vers un gouvernement d'union nationale, que nous ne sommes intéressés par aucun gouvernement avec M. Macky Nous ne pouvons pas être dans un gouvernement d'un président légal, illégitime et qui a trahi son peuple. Nous ne le serons jamais. Par contre, nous disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au finish, l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple a Pour procéder par radicalisme, nous avons ouvert la voie pour Pandore c'est l'armée souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remet en cause tous les acquis démocratiques. Et nous avons, nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le, le, le, le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président et l'armée intervenue, a été acclamée par le peuple, mais nous voyons ce qui sont, ce Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de deux ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Cela ne pas dire pour autant que nous allons refaire tomber la ferveur et que Macky Sall aura un blanc-seing. Nous devons encadrer cela. Et c'est en cela que nous pensons que nous devons aujourd'hui imposer un agenda à Macky parce que le rapport de force nous le permet. Ce pas à Macky désormais de dicter quoi que ce soit dans ce pays. La première chose qu'on doit lui imposer, c'est la réparation pour les familles des victimes. Tous ceux qui ont été assassinés, l'État du Sénégal doit procéder à euh, une réparation, en tout cas forcément pécuniaire, pour au moins adoucir ou en... De la même manière, nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, identifier les auteurs et les traduire en justice. D'ores et déjà, une plainte sera déposé auprès de la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité et ça s'est passé sous le régime de Macky Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Il y en a plus d'une centaine emprisonnés un peu partout dans le pays, dont la plupart ont été kidnappés pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations avec des méthodes que j'ai qualifiées de fascistes et euh, qu'on n'a jamais vues en tout cas. Il faut qu'on mette un terme à cela et nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers politiques. De même que l'indemnisation des blessés, civils comme militaires. Nous exigeons que toutes les mesures soient prises pour pour arrêter à jamais la persécution et l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyens. Tout le monde est espionné aujourd'hui dans ce pays par Macky Sall. Tout le monde. Vous avez vu un gendarme, parce qu'il a bien fait son travail, qui a été assigné dans son camp et qui a été persécuté, surveillé, écouté, au point d'annoncer sa démission de la gendarmerie. Alors qu'il n'y a aucune acquaintance avec moi-même euh, relativement à ce gendarme. Nous exigeons que des mesures soient prises pour traquer, arrêter et livrer à la justice les milices de Macky Sall et leurs commanditaires. Tout le monde a vu ces milices se baladant Dakar auprès à, à, bord de pick-up, quelquefois de département ministériel même, et ouvrant le feu ou charcutant les manifestants à de machette. Nous exigeons qu'ils soient arrêtés, traduits justice, mais qu'ils livrent également le nom de leur commanditaire. Nous exigeons qu'il soit créé les conditions de transparence, de sincérité et d'équité pour l'organisation d'élections. Depuis que Macky Sall est dans, euh, arrivé à la tête de ce pays, des conditions de transparence et d'équité. Depuis qu'il est là, aucune élection. Cela doit cesser. Nous exigeons que les élections locales, puisque les mandats des maires sont arrivés à expiration depuis deux ans maintenant, les élections législatives prévues pour 2022 et la présidentielle de 2024 se tiennent dans les délais. Et avec, avec une autorité consensuelle. Parce que ce n'est pas ce ministre arrogant, incompétent, immature, partisan qui peut organiser dans ce pays des élections. Nous exigeons d'ailleurs son relèvement, en tout cas euh, euh, son limogeage le plus rapidement possible. Parce que les Sénégalais ne sont pas en sécurité avec ministron qui se permet de traiter tous les Sénégalais de terroristes et euh, de représailles. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement inconstitutionnellement confisqués par Macky Sall. Parmi lesquels les droits civiques de monsieur Khalifa Sall, maire Non seulement on lui a confisqué ses droits civiques, mais sa mairie. On a confisqué le suffrage populaire des Sénégalais. C'est inadmissible. Mais également de monsieur Karim Meïssa Wade, candidat du PDS, puisque même au niveau international, des de justice sont intervenus pour dire que les procès qui ont été organisés par Macky Sall ont violé les droits de, ces, derniers. Je considère, moi, qu'il n'y a pas de mérite à gagner des élections lorsqu'on s'est débrouillé pour magouiller et écarter les candidats. Une élection n'a de valeur que lorsque la compétition a été libre, démocratique et a permis aux Sénégalais de choisir librement entre les candidats qui ont des programmes. Et c'est pourquoi la présidence de Macky Sall n'a pas de valeur. Parce qu'elle a été magouillée en écartant des candidats. Nous lui exigeons à lui, Macky Sall, de déclarer publiquement et sans ambiguïté ces histoires de ni oui ni non, c'est fini. Un président qui dit ni oui ni non, ou selon mon bon vouloir. On n'est pas en monarchie que je sache. S'il a un bon vouloir, il n'a qu'à attendre d'avoir le royaume euh, Salène ou je ne sais quoi. Excusez-moi, M. Khalifa Sall. Mais il n'a qu'à déclarer publiquement et sans ambiguïté, et le peuple lui réclame, qu'en il fera ses bagages et il quittera. D'une manière ou d'une autre, parce que l'ultimatum que nous avons lancé en disant ne poussons pas le bouchon, au point d'aller le cueillir au palais. Ce n'est valable que tant que le mandat légal, tant que le mandat légal est en cours. Quand ce mandat expirera, d'une manière ou d'une autre, comme il l'avait dit à son prédécesseur, nous irons le déloger au palais de la République. Je demande également, nous demandons au peuple sénégalais, particulièrement à la jeunesse, de ne pas baisser la mobilisation. ce ne va casser cette mobilisation exceptionnelle. Il faut que les, les, les, victimes, il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui, le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Macky Sall à la manifestation. Le peuple l'a repris de force. Il ne faut pas qu'on perde cette, ce droit. On, nous vous proposerons, après concertation, peut-être deux fois par semaine, que le peuple, partout dans le pays, pas seulement à Dakar, sorte massivement et pacifiquement pour aller rejoindre une place avec des drapeaux nationaux et exiger que ces points de revendication soient rapidement satisfaits par Macky Sall et son groupe. Donc, jeunesse de nos pays, ne faiblissez pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. Maintenant le cap, maintenant la mobilisation. J'en appelle également aux forces de l'ordre et de sécurité. Quand les gens sortent pour manifester pacifiquement, limitez-vous à encadrer ces manifestations. Il coûte beaucoup moins cher d'encadrer une manifestation que de la réprimer. Une seule grenade lacrymogène peut coûter, jusqu'à francs. Vous en lancez des, milliers par jour, c'est des milliards qui sont perdus. Et sans compter les dégâts humains et matériels. Donc, respecter le droit de manifester et encadrer simplement ces manifestants. Je lancerai un appel à nous autres acteurs politiques de l'opposition. Ce que le peuple a démontré c'est qu'il en a marre d'une certaine manière de faire de la politique. Nous avons tous la responsabilité, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos convictions idéologiques, quels que soient nos projets politiques, nous avons la responsabilité de rassurer ce peuple sénégalais. Nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de ce peuple, parce que ce peuple est plus digne pour le moment que la classe politique euh, qu'il devant lui. Nous avons cette responsabilité de rendre à la politique ses règles noblesse. Mettre fin à la corruption, mettre fin à la prévarication, mettre fin au, au des ressources naturelles, mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil d'État pour brimer les opposants ou brimer simplement euh, euh, les populations. Mettre fin à la boulimie foncière mettre fin à tout ce qui est dénoncé aujourd'hui en termes de Nous devons tous solennellement en l'engagement, parce que ce peuple mérite mieux, et nous devons tous faire pour lui donner mieux. Je terminerai simplement par lancer un appel solennel à la Casamance. Je le fais depuis quelque temps avec insistance, parce que jamais le moment n'a été aussi opportun d'en finir avec cette crise qui a coûté trop au Sénégal à l'Afrique, en termes de vies humaines, en termes économiques, en termes de stabilité sociale. Il faut qu'on en finisse, et ce n'est pas avec des bombardements, ce pas avec la force, parce qu'on ne règle jamais une crise comme cela. J'en appelle à mes parents. Je leur dis cette mobilisation exceptionnelle de tous les Sénégalais, de tous les bords, sans distinction, de région, de race, d'ethnie, sans distinction d'âge. Cette mobilisation exceptionnelle a fait tomber les stéréotypes, a fait tomber certaines croyances. Les Sénégalais, debout comme un seul homme, ont dit, ont émis un message au monde entier. Nous sommes tous un seul et un, un peuple, distinction. quelles que soient les frustrations qui ont pu être à la base de votre décision de prendre les armes, quels que soient les clichés de mépris, de manque de respect ou de considération, aujourd'hui, le Sénégal tout entier vous a démontré, en se battant, non pas pour nos de la Casamance, mais pour les Sénégalais, même originaires de la Casamance, en donnant leur vie pour un Sénégalais originaire de Casamance que la Casamance est une part entière, totale du Sénégal. Donc, l'appel que je lance, c'est de déposer les armes sans condition, de le faire dans les six mois à venir, que tout détenteur d'armes le dépose auprès de l'armée nationale et qu'ensemble avec cette verte armée nationale, vous procédiez à identifier les lieux d'emplacement des mines antipersonnelles qui continuent à faire des ravages auprès des populations innocentes pour que le déménage soit fait et que le cas, la Casamance redevienne ce qu'elle n'aurait jamais eu cessé d'être, c'est-à-dire ce grenier du Sénégal, mais ce grenier de l'Afrique. Je vous remercie. Je, je, je,